auzubillahi mina sheytaani rajim ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi naan asalaamaaleykum suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal réew mi rawatina suñ mbokki ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Tuuba ki yëkkati kàddu gi nag Serigne Xaasim Mbakke lañ koy wax di Cheikh Ahmadul Bachir di am déclaration yu gàtt yuñ bëgg a jàllale pour leeral ko ñi nga xam ne Touba lañ am Touba lañ dëkk rawatina bi nga xam ne ñoo nekk Touba te ñu ci bëri amuñu lu ëpp dëkk ba muy Touba wante dafa am ñenn si ñoo xam ne dañuy mbubboo Touba di leen nax guddi ak bëccëg. te Touba ñoru leen seen intérêt personnel rek moo leen ñor te léegi nag nit ñi duñ ay dof nit ñi duñ ay jaaxil nit ñi yor nañ seen xel te dañ koy étudier bu baax a baax a baax ki may cité nag di ko wax na bàyyi caaxaana mi muy Matar Diop mi nga xam ne la ma waxoon rek nekk na nit koo xam ne li muy yàq xel président Macky Sall Touba moo ëpp lu mu koy defaral boo gisee moo génn tey di ko leeral askanu Touba rawatina ñi nga xam ne dara ñorul leen lu dul réew mi di ànd ak président Macky Sall ñu bàyyi xel booy boobu muy Matar Diop ndax booy la boo xam ne tekkiwul dara Touba. mosu faa tekki dara sax ba fay tekki dara tey ndax koo xam ne dañ faa tuxu si te tey li ma waxoon rek boo doon xool këram fa mu dëkk ci Touba bi da ngay laajte ba sonn ñu soog laa woon fa mu dëkk kon nit koo xam ne ab taalibe képp nga mën a doon Touba di taxaw di imposer sa bopp nan tekki nga dara Touba ña ngi koy wax danga leen di gërëmal danga leen di naxawante ñoom xam nañ la se ko ne nag weesu nañ fu ñu leen di naxee. ak fu ñuy toog di yàqal président Macky Sall te yow loolu si ngay xëy guddi si ngay xëy pëccëg da ngay jàpp ne da ngay defal président wante da nga koy yàqal ndax booy nga boo xam ne ñëpp xamoon nañ la si keppaaru mu siisaloo mu la daan nga ko daan doxal ay yitteem guddi ak bëccëg te ni nga mel tey siisaloo ginnaaw yàlla siisaloo moo la ko melloo te fayoo naar ba xoromam yow ma tarju la ma si dolli nag askanu Touba mu la leen a nax ndax maa ngi dégg fan yi nga ñëw fa yor say caméra di jéem a pep waa Touba nan leen conseil département Touba bi da nga kaa bëgg a laaj yow la président Macky Sall samp la nga njëkk def nag dafa garaaw muy bàyyi bu président Macky Sall tukki nga ñëw Touba naan président Macky Sall moo wax ne yow la fa bëgg a samp nga jiite conseil département Touba loolu nga wax dara du si dëgg ay kàcc la di ko xamal waa Touba askan Touba xam ne yow si yitte tey donc eh, personnel moo intéressé ak li ngay naxee yenn ministres yi ak yenn directeurs yi ma leen di xamal ne booy boobu muy Matar Diop tekkiwul dara Touba te da leen di influencer di ñëw di leen sonal guddi ak bëccëg te ñun xam nañ ci dara buñ ko waxee te loolu donc ngay def si ministres yi ak directeurs yi loolu nag day jeex may wax ministres yi ak directeurs yi ngeen gañe seen confiance bu baax a baax si booy boobu ndax da leen di utiliser te tekkiwul dara Touba gi yéen nag li leen war mooy liggéey réew mi ni leen ko président Macky Sall santé kon bu leen nangu benn booy ñëw di leen influencé naan leen gis naa président président nangam la muy wax se faux moom la concerne ñun nag pare nañ pour jàmmaar yow si côté gu nekk nag te loo si bañul rek bañuñu ko man Xaasim Mbàkke maay wax ak yow ma tar Touba nag duñ la fa may dara ndax doo ñëw si dëkkub jàmbur tekki woo fa dara te influenceur ni si bëgg nax askan wi loolu duñ la ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg te duñ nangu nag ngay ñëw di fay yàqal président Macky Sall ñu la siy bàyyi ndax yow li ngay yàq moo ëpp fuuf li ngay defal président Macky Sall xam nañ la nag sa kone lii nag da ngay arrêté sa yooyu ngay def te lii nag effectivement la rek wante ñu ngi ñëw génn waat yeneen yoo xam ne moo gën a pire fuuf si lii ñu déclaré tey génn ko loolu laa amoon lu may wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh